bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Bawal TV Naar Fall mu ngi leen nuyu di amaan mbégte contentement jàkkaarloo ak yéen ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm na xaar leen aljana ñu tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu ci ab ginnaaw yàlla na suñu borom génnee bañ dellusiwaat suñu biir dañ bañ faa dellu mbokk ñu leen koy defal ñu leen ko daan defee saa su ne leen fépp fu actualité làmb rek dinañ fa dugg génne ko waxtaan ko ak yéen waaye mbokk yi tey yaakaar naa kii ñu dalal kenn door ko présenté kii mooy kan Batika moom lañ dalal tey fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ci actualité làmb ak li nga xamante ni mbokk yi moo ne ci réew mi Batika yaakaar naa kenn doon ko présenté waaye laata boobu dañuy nuyu suñu sponsor yi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci liggéey bi ku ci mel ni waa Touba Kër Ñang communication chez Mamor nee naa ñooy jaay téléphone yi baax yi te dëgër di jaay en gros di jaay demi gros ña nga ca Colobane ak Tëngéej boo demee Colobane ña nga ca cantine numéro 348 Tëngéej ña nga ca jardin public ba soo bëggee jokkoo ak waa Tëngéej da ngay def mbokk yi 78 433 80 70 waaye boo bëggee jokk ak waa Colobane da ngay def 78 183 nee naa dañuy jaay en di jaay demi gros waaye kenn du waa Giring ok mi ci engrais bu baax bi nee naa la ko def sa tool mu naat picc du la sonal gunóor du la sonal ña nga fële ca ñaay cokkeer ñooy jaay engrais bi nga xamante ni ko def sa tool suñu borom defal la li nga bëgg seen numéro 77 182 99 80 77 182 99 80 di nga jot alpha mu wax ni ngay def ba yegg si ñoom wax la aussi nooy def ba utiliser sa engrais waaye duñ def lu dul jox suñu gan mu nuyoo Batika mi nga xamante ne nee naa leen moom caria rek lay attee ñu jox ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy làmb Batika nuyu nañ la si yàlla. waaw ñu ngi lay fay na TV ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu ñaawaar di rafetlu seen teewaay. Eh, di leen ñaanal wér ak wér le di ñaanal askan wi yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan chaîne bi di ñaan yàlla may la wér gudd fan am déet ak mbooleemu julit waaw te rafetlu daal seen mbir naan leen lii daal continent àddina tey nii rek la ko yàlla bindee lépp loo xamante ne yéen a ngi xool dëkk bi ci lëndëm wala lépp ngeen koy leeral kon loolu mel bokk ngeen ci xeet bu gën a rafet daal waaw yal na leen yàlla leeral ci daraje Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nuyoo bi am na solo ñaan yi am na solo Batika réew mi namm nan la namm sa kàddu namm sa waxtaan ndax yaakaar naa Batika bu génnee luy jëriñ rek ci lay wax waaye ñu koy jaale magam bi nga xamante ni génn na àdduna ñu ko koy jaale di ko jaale mbokkam yëpp di ñaan saraxam yàgg seen loxo yàlla yërëm ko xaare ko aljana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo Batika gars yi namoon nan la. waaw ñu ngi lay fay ñu lay fay bu wér a waaw di wax ni àddina moom noonu rek wax ndax yàlla moom bu soxlaa. am de ku bëggi da ngay ñàkk. waaw di ko ñaanal daal yal na ko yàlla xare àjjana ci tawféexu Seydina Mohamed ci tawféexu borom Touba. àddina de kenn dëkku fi ñëpp daal nañu waaj seen bopp xam ne lii lii daal du wees am leen mi ngi noonu lii daal du wees daal yàlla nañ ci yàlla xare ko àjjana ñu fi des yàlla bu bàyyi leen fi tërëjee Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ci atta bi ba léegi waaw ñu ngi àtte àddina boo dee xool tey chaque jour dañ leen ciy wax mais dañuy yaakaar ni day foofu gis nga boo demee ba bi rek wala benn as da ngay a changer man rek laay def bu ma gisee lu normal wax su ma gisul lu normal du ma wax lépp bëgg dëkk bi am jàmm ñëpp ne ci siraatal mustaqiim bu ñu ko defee daal day gën a daal day gën a rafet incha allah gisee dëkk bi temps yi ak ni muy doxee daa ni am na changement waaw dëkk bi am na changement dëkk bi boo dee xool am na changement bu baax a baax loolu dañuy yaan yàlla mu duñ ko wax kenn ku yàlla la waaw nañu ñaan yàlla gën a continuer waat lii bu defee daal ñëppay nekk ci jàmm daal waaw dëkk bi moom buy def ne yàlla ñëppay nekk ci jàmm waaw ni jubal luy sa devoir nga def ko am de luy sa yoon nga def ko bu la yàlla dimbale waxtu jot nga dem julli ñi war def seen liggéey def ko nga xam ne boo gisee nit koo xamante ni yërëm nga ko nga am loo ko jàppale souvent boo ko mënut a jàppale nga bokk mu dem mais bul jël alal wala bu ko def dara wala di ko xoqatal loolu rafetul ndax dëkk bi léegi nekkatuñ dëkk boo xam ne kenn ragalatu fi koo ci xoqatal da ngeen mujj yàppante rayante rek mi ngi noonu mujj ngeen dem din mais noonu amatul bu njëkk la ni doon ragal mais léegi ki amatul ragal waaw ko ko woq mu xuri waaw koo woq mu xuri la jeex tax koo génneel jaasi bu génneel fémmeñ waaw mi ngi loolu àddina bu génneel jaasi bu génneel fémmeñ àddina noonu rek lay tuddee bu ko defee daal yàlla nañ ci yàlla may njub ak comportement daal waaw incha allah waaye Batika duñ def lu dugg ak yow ci li nga xamante ne mooy actualité muy làmb combat war a am la 5 novembre di combat royal war a dox ci diggante Modou ak Ama Baldé combat bi yàggul lool depuis 2019 ñu koy pare saa bu ñu ko jàppee mu yàq saa bu ñu ko jàppee mu yàqu ñu jëm nag ci la 5 gars yi jàpp ko la 5 fële ci arène national Batika tey nan la gisee ñaari mbër yooyu ak wàccaayu combat bi. waaw tey boo dee xool tey diggante le fenk diggante Ama Baldé ak Modou mhm. di doon làmb boo xamante ni daal ñëpp a ko yàkkamti daal dañuy ñaan yàlla rek ah, dara bañ cee kii ba mu ju am ndax làmb boo xamante ne combat bu neex a neex a neex la am de ku la ni combat bu neexu rek da ngaa demul stade wala da ngaa jëndul bi am de dineen ñaan ñaari mbër yooyu yàlla may leen wér ak gudd fan entraînement kenn bañ cee gaañu daal am de ndax combat bi loolu rek mooy cat bi daal mm-hmm. waaw ñu bañ koo reporté wala kenn bañ cee gaañu rek moo mooy combat bi moom mais bu taxawee moom di nga ah, di nga gis combat bu neex a neex moom loolu rek lañ ciy ñaan di mbër la ndax Modou Lo mbër la Ama Baldé du ma ni Modou Lo sama rakk rek mbër la bàyyi kii ñoom ñaan ñëpp te ay mbër la ndax bu ñu leen boolee la ñu xamante ni kenn blessurtul sa morom dara waaw kon dañuy ñaan yàlla Modou Lo jël ndam li waaw moom suñu rakk la am de dina continuer entraînement yi am de am fulla am fayda am taxaw na ma ko daan defee xam ne nag ku ah, bu ñëwee taxaw def lu mu war yàlla may ko ci ndam bu deful yaa xam ne lépp lu am rek ñoo xam ne yàlla la ndax boroom bi noppi na ba pare waaw mi ngi noonu bu ko defee yi nga xam ne daal lii la la yàlla may nga féetewoo ko àddina noonu la mais li coow li di bari bari gaa yi di xëccoog lii am moom suñu borom def na ko ba pare mais coolee fi des rek waaw liy am suñu borom def na ko ba pare billaay wala yàlla moom moom nit ñee ci nekk rek di def nii di wax li wala laa am de yéen ñi naan defal nii wala defal mais de daan suñu borom def na ko buy yàgg kenn bañ ci wala wala mais Sénégal duñu xam la da nga gis ku ñu ci daan wala combat am daan mbër nga dem toj stade bi yàq chaise yi lii kër kër amul njariñ loolu da lay yàqal sa mbër man tey su ma yóbboon sama mbër mu daan sama mbër laay defanteel ni ko ah bëri nga normal daan nañ la góorgóorlu wala ma ni ko lii wala ma defante moom mais di saaga wala nga tu loolu baaxul loolu loolu loolu day yàq làmb day yàq sport làmb demoon na ba ñëpp ni làmb mi ngi bëgg a yàq bu demaatee ba ñëw xam ne mi ngi commencé neex buñ ko kii buñ ci amul seen fula day mujj naxasaay moom man maa la wax lii kenn dootul demati stade uh-huh. mais combat bi ak coow li ci ne signature bi ñu waaj bu buñ ko jàppee mu yàqu ñu yóbbu ko Gambie mu yàqu yaakaar naa tey ñaari mbër yi dañoo war a def face to face tey ci le 21 bi tey lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy gunge mbër yi ak ñaari mbër yi pour ñaari mbër yi mën a jàkkaarloo wax ak askan bi ñu xam lan lan la seen diggante la 5. waaw man xam naa ne moom ñaari mbër yi du ñu ma sa songoo di xeex ñu ci ginnaaw kese la làmb moom mosoo gis ñaari mbër taxaw di xeex wala ñu ci ginnaaw kese bëriwuñu jaay wu ñu dara taxaw ci di wane ñoom bu ñu buñ doon xeex nañu wut lifaas bëre laam ji yaatu na bàyyi ñaari mbër yi ñoom fayuñu la fayuñu sa askan fayuñu sa kenn mbaari mbër yooyu la ñu fay kon ñooñu ñoo a am respect jox nit ñi cër mais ku ne di wala ngay aju mbagg bu ñu waxee nga naan diw foofu duñu loolu dara loo duuxal dënn wala duuxal ko mbagg bu yàggee dina wàcc kon yooyu waru da ngay conseil sa mbër indi julli ba jàpp ba set ñëw naan ko defal ne yàlla na ñaan loolu nga war a ñaan ci mbër mais waru dëkk bi yàgg loo neex nga yàq wala xaf-xaf ñoom rek ñoom ñoo yàq mbër ñuy topp mbëri ñoom rek ñoom ñooy yàq combat yi barke alxuraanu kër ah ñoom bëriwuñu bëraanuñ te yoon sa nga dëkk mbër moom te mbër mi nga dëkk soxlawu la dëkk nit boo ñëwee da ngay am respect xam ne ñii say mbër yaa leen indi uh-huh. am de conseil sa mbër def booy def leen nii kat bàyyi leen noonu ndax xam ne bakkan ñoo fay ne uh-huh. ndax bakkan du caaxaan da nga koy jël wala nit jël bakkan nga yaakaar day dem ba benn moment boo xamante day fayu sa njaboot wala mu

am yar am teggin loolu mooy yoon bu ko defee xam ne mbëri ñooy bëri kuñ ci daan nga xam ne daan nañ la ndax combat bu neex la ndax tey Modou Lo boo xoolee dugg seen parcelle unité ba 26 kenn du des Medina Gueule Tapée ñëpp ñëw ah Ama Baldé nga xool Pikine ah la wër kër jàmm gën ñëpp tey supporter nga xam ni nga xam mbër mooy ñaar tëdd fil ñooy bëri mm-hmm. ah lamb ji day feet boo ko defoon billet 10 000 taxawaalu mm-hmm. ah, nga xam ne loolu combat bu neex la ñëpp dañuy ñaan yàlla ni ndax nañu ñaan yàlla combat bi ndax dafa doon combat boo xamante ni daal ah, xaw na yéeme tuuti daal waaye nañu ñaan daal yàlla combat bi am. xaw na yéeme. ci ban côté. waaw ci côté yëpp combat bi xaw na ci côté yëpp combat bi xaw na yéeme ci côté yëpp de. waaw ndax ñoom ñaan ñëpp dañuy xam kuñ ci jekkoo yëpp mbër da nga koy xaman mi ngi noon boo gisee ñii di yàq wala kii combat yëpp dafa doon combat boo xamante ni combat bu yéeme la de waaw waaw bu leen koy combat yomb yooyu noonu du du combat bu yomb waaw mi ngi noonu combat bu mag a mag a mag FPNF ndax ku ne waaw ndax ku ne da nga cee fonk waaw kii ci ku ne da ci waaw Modou Lo bu ñëwee gar ci bakkan ma amaani dama ci gar sama bakkan ah, waaw kon fulla ak ak jom mooy may victoire combat boobu noonu waaw mais ñu gis ba mu taxawee ba léegi wala ba mu desee ay fan ba léegi façon mara bu ne génn na ñii ne combat bi dina am ñii ne combat bi du am ñii naan bu amee kii mooy daan ñii naan bu amee kele mooy daan mel ni danoo bëgg a jiitu suñu borom ci li nga xamante ni moo war am maara yi nga xamante ni ñooy génn naan combat bi du am ak dina am ñooñu say boo amoon loo leen wax loo leen wax. non ñooñu ñoom chaque jour nga dégg ci chaque jour chaque jour nga dégg ci sëriñ yi wax daaw ñooñu gis nga dañu war a dañu war a ne ci jàkka yi di julli. am déet yor seen kurus di wérdi. am déet chaque jour chaque dimanche sëriñ ruus. nañu war a bàyyi loolu gis nga lool bu ñu ko xamee nañu war a bàyyi ay yàlla jiit yooyu am nit mën nga wax mu tombe mais boo ko bàkkoo beneen yàlla dalay xaaral beneen côté bi yooyu xamuñu ci leen lu war a am ñoom ñu war a def dem xool leen lu ñu war mais ay lii bu ko defee di nax nit ñi lool man soxloo ma sëriñ yooyu yàlla moo yor lépp lépp lu am yàlla la yàlla nag bu la wonee bul baax boo ne ah, ah man de gis naa lii kat mais ci kàttanu yàlla de ah bu yàlla bu neexee yàlla kat lii dina am dañ ko war a wax mais ay maa def lii maa gisoon kenn gisul dara ku gisuloon dara dee du la bet wala mu bett sa mbokk ba nga naan combat bi fekk am na sa mbokk bu gaañ da ngay dune nga ne tiit astafu tiit de wutali dem jaali yooyu yëpp amul nañu bàyyi nit ñi bëri may nit ñi seen conscience may nit ñi seen lépp mais wax wa sëriñ yi sëriñ loolu ba rafetul ko nit sëriñ dëgg bu xamee sax du wax day nopp génneel sarax waral mais jiitu borom bi amul njariñ jiitu borom bi te fekk da dee amul dafa am benn njariñ yàlla kenn mënu koo jiit boo ko jiitoo dee boo la jiitoo yooyu da ngay mujj làqu am de kon dañu war a jox nit ñi respect xam ni ñu war seetaan lu am du doomu aadama yàlla la lu am du doomu aadama du yàlla la ma xam yàlla dafa am place am doom yonent yi sax dañ leen a classé seen mm. noonu mi noonu dafa am loo xamante ne mi noonu tey ma doomu aadama bu mm. deeyee la malaaka di jëflante moom mais tant que dund malaaka mënoo wax ak malaaka ba malaaka déglu la wala malaaka xool la mm. mi ngi noonu boo deeyee nag malaaka yi jëflante yow mm-hmm. mi noonu loolu du may doomu aadama waaw dee moom du ñëwee ordre waaw ñoom dañu xamul ndax dee bu doon ordre ñëppay dem àjjana mais désordre da lay bett mm-hmm. barke alxuraan ko da bett moo tax nit ku ne lépp loo xam nit yaa ngi ci da nga xam ni yàlla mooy mooy ma ngi noonu bu doon ordre ñëpp dañuy wàaj dem àjjana ku sa bàyyi dee da nga naan yaay moo ci topp wala lii mais du ñëwee noonu désordre lay ñëwee amul si digg fu ko neex borom bi da koy kupp moom daal moo xam waaw yàlla nañu yàlla may wér ak gudd fan uh-huh. waaw dërëje yor yaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais Batika jamono yi muy bëre comme maara yi nii di mus nga am maara mu ne la tey boo demee combat bi dina def nangam wala dina demee ni dan lay daan wala jekku nan la. waaw dëgg la ba may bëreeg ba may ba ma ba may bëreeg Cheikh Kane doom papa Kane bu caaree. Mhm. booba dama ñëwoon soxla ba ma ñëwee sëriñ bi ne kii benn yoon bu la xësee ba dóor benn da nga koy jàpp daan. Mhm. ma dem confesse soo gisee ma léewatoo maa xaw a yeexal ni booba géejawaay la woon. Mhm. may léewatoo ma léewatoo ba ma Cheikh Kane dóoree eh, eh, gauche. ma ne jeex na ma fekk fa gis fa inde bi ci laa jël sama sama sama sama kii daal def sama fulaak fayda ma ne sëriñ leen topp ñu jàlloo la. waaw ah, ci laa xàcc mëpp ko mu daw jël mama mbaar ko suuf non dëgg dañ lay naw yooyu amul yooyu laay bañ a dégg te gis nga ay sëy <laughs> laay bañ a dégg billaahi wallaahi taala dañu bu na dural benn yoon la lay dóor mu dóor ma góos ma ne kon jeex na ndam li ñëw na ni may siggee bay déplace ma gis mu xàcc gauche droite tëgg ma droite bi pang ma ni ñu daal barke sëñ Touba boo jëlu say say say matuwaay ba boo moytuwul eh, ñibbee jaal. ay jaal ngay mujjee c'est la wax dëgg dañ lay dugal ci yoo xam ne yàlla noppi na yàlla noppi na. benn ku saa ñëw dóor ñetti ku. ñetti ku barke Rasulullah une dóor ma une deux tëf tëf ma ni xam ne boo jëlu say matuwaay gars dañ lay wax loo xamante ko quoi billaay wallaay taala rafetul. ni da ngay wax lu normal ñu xam ne lii wax la yoo xam ne yàlla mooy yor lépp lépp lu am yàlla ku am yàlla ku ñàkk yàlla bi ngi noonu foo ko jàppee foo rek doo sonn waaw yàlla lu mu bind kenn mënu ci dara waaw ayca ñu ñëw ci ci ci combat bi Ama Baldé Modou Lo tey Batika bu doon yóbbu Modou Lo lan koy bëree la digganteem ak Ama te yaakaar naa xam nga Ama Baldé nu muy bëri ñëpp xam na ni attaquant la Modou Lo ku ñuy attaqué la waaw tey Modou Lo attaquant la Ama euh, Modou Lo tey day attaqué Modou yi tey mën na attaqué mais mën na taxaw di ko xaar nit moom boo amee doole Modou boo boo ànd Modou Lo boo amee doole faalewul kuy ñëw faalewul kuy taxaw billaahi wallaahi taala faalewul kuy ñëw faalewul kuy taxaw tey Malick Niang Ama Baldé ba ñu doon bëre kan moo doon attaqué du Malick Niang moo doon attaqué te Ama Baldé moom attaque lan nga ci gis gis nga ñun ñoo wax yooyu rek Malick Niang moo attaqué di dóor Ama di an ya di dóor ba Ama dëgg dóor ko fa kuubax mu petti ko mu daw yooyu dañ lay wax rek ki boo attaqué fekk fa biceps yu toll ni puno puno ndaraan am déet mi ngi no yi nga tey boo forcé waatee ni fekk fa puno da ngay xam ne lii yàlla rek mi ngi noonu yooyu yëpp amul ñu attaque défense yooyu yëpp amul népp gis nga fi ya nga xam ne nii lay ñëwee moo loolu li ma ko de entraîné taxaw léewtoo normal jox làmb bi cëram am de ah xool li yàlla def nga xam ne lii la borom di jeex na tàkk Modou Lo bu ko defee tey mën na mais du question kii day attaque wala mbër mu yàgg nga fi gis mbër yu attaque ñu daal leen yàgg nga fi gis mbër yu xaar ñu buub leen sànni fële mi ngi noonu la dëggee bu njëkk boo taxee moom di léewatoo moom bu lay sax doo ko yëg da lay sànni la fële am de mi ngi noonu tey boo am ngay attaqué nit jékki-jékki yooyu yëpp tey ñu nax la daan la mi ngi noonu Tapha Gueye ba muy bëri sa attaque sa koñ nan nga ci gis waaw mi waaw mi ngi ba mu dajee Tyson da koo attaqué da koo koñ yooyu yëpp di yooyu nit ñoo ñooy wax yooyu rek yooyu nit ñi amal sa fula am sa benn mën nan mbër muñee ak noo koy attaqué ak nooy xooy xoolee làmb ji da ngeen den combat boobu di nga déglu sa morom mais analyseur yu bëri nee na Modou Lo war war di wu di arrière non bañat mbañ ñun ñi ñooy wax la bañ a taxaw Modou Lo di entraîné nekk ponkal bu entraîné taxaw kenn du ko yëpp taxaw léewatu ay ñu ëpp ama sax Modou Lo defante ñoom gisoo mu anyeer am na yooyu nit ñi ñooy wax rek xam nga nit ñoom bëriwuñu mais kii bëree xam na lu koy yàgg may na mu di ko def xam mi ngi noon mi ngi doo ko mën a mais ñun ñooy wax lu leen neex daal bëgg buzz wala bëgg dara mais Modou loo xam na nu mu war a waaw mi ngi noonu nu mu ko naan bëri na ma ko entraîné ñëw taxaw kenn ëpp ko doole ci àddina mi ngi noonu poids am baax na ñu taxaw jeex na tàkk bu léewtoo mu léewtoo mi ngi noonu bu kii mi ngi noonu jeex na tàkk mais li ma jaaxal moom mooy Pikine commencé nañoo woowee Ama roi des arènes ñoom jàpp na ni roi bi moom dugg na Pikine Ama daal na Modou Lo ba pare xaw ma nag ban yàqin lañ ci am waaw noonu la tey Pikine bu nee daan na ñun tey Modou Lo ma gën a téye roi ba quinze ans xam ku nekk bi ngi parce ñu ngi ne Modou day téye roi des dix ans nee na ñu ngi jëmee ku nekk looy wax da def sa kii rek mais bu bis baa moom ah di nga xam ne di nga xam ne Modou du caaxaane làmb Modou Lo du caaxaane làmb de lu leer laa la xamal du caaxaane làmb waaw mi ngi noonu waaw doomu fallaay mbër la waaw mbër moo du moo du caaxaane làmb de barke sëñ Tuba la mu fi def ay ñoo xam ne seen papa mbër la sax defuñu ko fi mi <laughs> ngi ko foofu rek nga koy xoolee waaw làmb foofu rek koy xoolee waaw macha allah combat boobu dégg li ci Batika wax am na solo mais jëm nag sa doomu ndey moom am na combat boo xamante ni moom it xamul fu mu koy yàqalee Lac de Guiers 2 war a daje ki nga xamante ni mooy Siteu yaakaar naa yàgg lat moom am na fu ngeen jaar waaw dëgg la dëgg la am na fu ñu jaar tey boo dee xoolee lak di mbër moo xamante ni am na expérience ci làmb tey ñëpp dañ naan Lac de Guiers mun lu bëri wala de Guiers day xaar ku ne bu soñoon mel noonu ndax mënoo bëri lu mat ay vingt cinq combats am benn défaite am déet tey boo ma soñoon noonu la yàlla bindee sama kere mais jàmbee pexem yàlla ak dogalam waaw sama doomu ndey la te nit ku baax la res jox na nit respect léeg dañuy déggante téléphone li nga xam ne loolu comportement la di ko wan ne am na combat boo xamante ne ñoom ñaan ñëpp dama ne nañ def attention waaw Lac de na def attention Siteu na def attention lu làmb boo xamante ne tey euh, làmb boo xam ñoom dañ koy caaxaane ndax Siteu dafa bëgg làmb ji trop Lac de Guiers teg ci bakkan bi lu leer laa la xamal ci combat boobu nag di remercier Mansour Ba mi nga xam da koo tëgg waaw di xam ne suñu rakk suñu rakk suñu xarit juddoo 19 yaroo fi am de di football nawetaan tey ba ñëw tey yàlla dimbali ko muy tëggaat lam di jàppale nit ñi di def ay ay don ku ne mu jàpp école yi bàyyul école yi bàyyul marché yi bàyyul këll baa lépp tey di jàpp te bu ko neexoon tey day dem Almadies jël fa këram toog am de gis ko ci ay waajuram nit ku baax a baax ku mu xool mi la bëggal lu baax bëggal lu baax di xam ne ko loolu comportement la tey bu tëggee làmb bi si boppam sa dëggee Siteu ñëpp dañ ko ci encouragé jiital ko yàlla def ko multimilliardaire ñu topp ci ginnaaw ndax nit ku baax ko oyof la ñu bëri nekkoon nañ ci tey son tey dañ leen dimbali ba ñëpp tàll seen loxo ne alhamdulilahi rabbil alamin kon nit ku mel noonu boo ko amee lu mu jàpp da nga ci a jàpp di ko conseil di ko conseil bu amee ñëpp dañ nañ am parcelle tey buñ ko seetaanee bu ñàkkee ñëpp tey dañuy ñëpp dañ ñëpp ñëpp dañuy ñàkk ba pare am ñoo xam sax mën nañu toog fee di reetaan ndax bët tey nit dina la woon loo xamante ne nekkul ci biir am nit da koy calculer noonu bët li nit moo moo yéeme nit di nga xool doomu aadama tey di nga nit dina xool doomu aadama pare siiñ ko ay bañ fekk bëgg ko barke alxuraanu kër loolu yëpp ab day day feeñ ndax yàlla kenn mënu koo nax dafa nekk ci lu baax nekk siraatal mustaqim kon yàlla na ko yàlla jàppale ba làmb yëpp mu génn mu réussir si comme ma la déggee site bi di combat boo xamante ni gisuma combat bu ko mën a daax ci stade bi barke Serigne Toubam lamb ju neex may mooy combat boobu kooku di nga ne ma maa la ko xoon. seetaan nga seetaan nga jàkkaarloo ñaari mbër yi keroog. waaw ah, seetaan na leen bind seetaan na leen Siteu fu mu ne màbb di ko wàññi leen naan ko léeg-léeg la mhm. moo tax ñoom ñaar ñëpp tey dama leen ne boo xam ndax Lac de Guiers day Siteu da kanaan ma dañ koo gëm Siteu moo dàq par Lac de Guiers 2 mhm. loolu lañ ko wax Lac de Guiers dañ ko ñu ni ko nag yaa dàq ñu ni Lac de Guiers 2 yaa dàqee ndax kii xale la mhm. am de mënu la yëngal am nga fekk nag bu yàlla noppee ñi boo calculé ñaar yu day xaw a am kii tuur ci boppam am de mi ngi noon Lac de gerte tey boo dee xool tey du taxaw du may Siteu dara Siteu nee na du anière mhm. waaw nee na du ma la anière Siteu ñëwul pour niil laat ni koy da ngay wax lekk ah ba dama lay ñaan ba arbitre sifflé nga xam ne loolu combat bu neex la barke Serigne Touba Mbacké combat boobu ku ko tardé barke Rasul lay bu doon bie bu doon amateur tey wala nga tef ko bie bie bie dix mille du taxaw barke alxuraan ko billaay wallaay loolu si ak amateur boo defoon dix mille trente mille du taxaw barke Rasul lay ndax tey boo dee xool combat la mhm. combat bu neex moo nekk combat boobu mais ñu bëri nee nan Batika moom Lac de Guiers 2 la yéena moom la faral parce que temps yi Lac de doomu ndeyam la am na fu ñu jaar mais la dëgër da daa mel da jël ci suuf la gars yi wax de non dégg nga fi tey sama xarit la ndax day fi nekkee tey euh, doomu sëñ Abdou tey day ñëw foofu di ko seet di koy ñaanal lépp ci boppam nga xam ne yàgg na ma ñëw fekk fekk ci gàmm taalibe yëpp tey boo dee xool ñun mënuñu koo mënuñu ñoom ñëpp ndax mbër amul ba ñëpp dama leen lépp loo su sa tolluwaay séq maa ngi dama koy séq ak yow am déet mais la dëgër nit ku baax la fi nit ku baax social yu muy def moom it da nga koy calculer foofu ak la dëgër da tey mënoo ma taxawal ñoom ñaan ñëpp tey tey bokkuñu écrit waaye dama leen ñaan ñoom ñëpp ñu am wér am wér dara bañ a gaañu ba jour ba ndax ñëpp samay ñëpp samay nit lañu ko quoi jàmm ngay séq ak ñoom mm-hmm. ku ne commencé sañoon tey mbër yëpp di bëri ku ne nekk yor ay milliards barke yoon tell Mouhamed mbër yooyu bëri commencé sañoon ñoom ñëpp yor ay milliards mm-hmm. koo daan suba kee daan nag bañ a am defe loolu dina xam comportement la nit boo am boo baaxee rek ñëpp dañ lay bëgg boo jëlee dëkk bi mais bu ma fa nekk nga jël dëkk bi di conseil nit ñi defal lii defar sa waa dëkk bi gox ku ku wàcc ci tiyaaba xam loolu comportement la nañu bañ a caaxaane lam xool wax seen supporters yi ñu am yar am comportement mhm. xam ne ñoom daal am na ñeneen ñu bëggoon a ñëw ba jël seen place te mënuñu ko yàlla tànn leen teg leen foofu kon ñoo war a delluwaat seen ba am xel am comportement xam ne yàlla kat bëgg nañu mhm. ndax ñoom ñaar ñëpp ñu ngi bëri mais ñu woon a bëri mhm. ay ponk li mbëri fi nekkoon yàlla def ñi génn ñi waruñu yor di te ñu leen dàqoon a mais bu ngeen jàkkaarloo tey da xam di gis nga na mu def ay olifine def ko ay ñoom bàyyi ma te seen seetaanu ko ci làmb te ñu leen gënoon a dàq mi ngi fi mais yàlla bu leen taane def da nga ah yàlla kat yow mi ñu def nii te dàqu nga yëkkati ñu ni kat dinañ delluwaat defaraat suñuy supporter toogaay toogaay boo xamante bu suñu waajur génnaatoon ñëwaatoon àddina sax wala suñu sëriñ ñëwaat du ñu defar suñu toogaay noonu lañ koy bàyyi comportement sa combat ak Lac de Guiers moom nan la meloon. non lu ma nit ñee wax rek xam nga booba combat boo xamante bëri naa tey presque boo dee trois combat deuxième combat ñu dekk la woon kii lañ ma noonu bëri doon nees nees xaw ma nu mu def dafa gaañu ba sëñ moo di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm mu wax waay ñu ko seen nees après sa boobu xaw sax Lac de ñetti combat la bëri woon daan si lañ ma ko mujj jox ma ñëw topp am doole taxaw ma ni kii fay faru juum xam nga xam am rek yàlla du da nga ciy santaat delluwaat sa borom xam ne lii yàlla du ñoom ndax ku ma si jàpp ñu zone supérieure daan naa leen mbappat am déet mi ngi noonu nga xam ne lii yàlla moo ko def te yàlla def jullit da ci war a neex li ma yàlla def dama ci kontaan bu wér tey mënoon naa kaa daan nekk fenn wala ma nekk barsaax wala ma nekkaat leneen mais comme yàlla def na ma def naa ni daan bëri na ma daan na ma amaat sama wér di ñaan nekk si siraatal mu xam nekk ci loolu sant yàlla la yàlla lu mu def rek nit da nga ni loolu moo gën lu mu def rek kenn du ko discuter yàlla du juum du def faute du la lu mu def noonu la ku gën toog daal yàlla may ñu di ñuy am quatre-vingts am quarante ans gis seen papa di toog ñoom ah ñii di bëri seen xam loolu sant xam ne yoolu ah ñëpp ñëpp dañ ko ne yaa Rasulullah jox nañ la suñu tey bu amee nga xamante ne tey mi ngi noonu nañ waxante dëgg àddina noon kese la lu yàlla def nga xam ne yàlla moo def li ñu nekkaat si siraatal mustaqim loolu da laa koy gisee mais yéen ñaar seen combat métti woon na la dëgg. waaw métti woon na presque bëri nañu ay lu kii am de booba ma booba xeex bi la doon dirigé bëgguma jàpp ndax daw na ba song ma jox ko côté mu rocceekuwaat loolu kese na ci làmb nga xam ni man booba ma daan ci làmb waaw neexul booba tëwoon naa dirkis naa grâce Ousa Sow lépp nag moo ko def ci jun ci bëri waaw du ñu bàyyi fu ñu heure jotee jo boo defee mbalam mbappat boo ñëwee mun la ñu def nii ngay jàppe waroo woon a jàppee ni nii ngay jàppe xam kooku nit ku baax la am di ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko yàlla def mu réussir ba ñibbi siwaat am de jàppale nit ñi loolu comportement la loolu lépp daal comportement yàlla na ko yàlla may wér Ouza suñu grand ñëpp daal Ouza boo xoolee benn kanam nga koy xoole amul ñaari kanam amul ñetti kanam benn kanam rek tey loolu comportement la waaw làmb ji noo ko gisee ak ni muy doxee CNG beeg mag ñi nga xamante ne nekk nañ ci boobu ba tey ba ñuy gone ba léegi ñu ngi ci lamb ji mënuñoo fexe ba euh, retraité topp lamb ji rek. waaw loolu ba ma koy wax dëgg la nit te boo demee benn âge boo xamante yow yaay xool ne âge bi ma nekkat am dem naa ba am presque ay soixante-dix ans. am de te yàlla daal foog ma kii da ngay arrêté jox say doom. maanaam bu dee ñii nga xam ne ñoo nekk yu micro central yi xale ñu jël leen tey doom bekkaay bay boobu xale la mën na leen remplacer ñeneen ak ñeneen ci boppam mën nañ koo jëlaat def ko ci kii am de kenn xamu gën nañ ko xam làmb keneen ak keneen loolu mooy bu ko defee ñoom ñu retraite mais euh, euh, liggéey boo xam ne amul retraite ah liggéey boobu yàlla na ma ci yàlla musal liggéey boo xam ne yow amul retraite ah billaay da ngay retraite baaxul loo rafetul si yenn façon liggéey ah billaay wallaay bu dee liggéey jàkk daal jaamu yàlla lool da xam naa amul retraite mën nga iba mais ay nekk lamb wala ay football yooyu yëpp ah sa aaj du la ko mayeti sax sa aaj du la ko mayeti boo demee ba yenn aaj te bu la tubaab ne boo yenn aaj wala lislaam wax la ko yonente bi bugguma ku lekk ba suur ba nga buggul lool ba da ngay wàññi sa lekk wàññi sa lépp tu met dañ la koo wax lislaam da la koy wax tubaab wax la xam ne boo yéene bay âge yoo xam da ngay wàññi da ngay xool sa régime waaw boo duggee quarante ans la nga daan lekk tey kon vingt ans ñu tegal la boolu ginaar nga lekk la nga dem teg ci fonde léegaat ceebu jën jaxase maa yooyu bokkul xale bu am vingt ans la ji mais doo ba dugg quarante jugul jugul cooy da ngay xool sa régime xool benn paa nga lekk ba suur bu ñu ko defee ñëpp dañaa sa wér dina ñëw di nga yokk am siraatul mustaqiim daal bu macha allah tey boo amoon kàddu booy dénk jeunesse su Sénégal ndaw yi nga xamante ñoo na Sénégal loolu la waaw ndaw yi ne Sénégal ñu rek la xool am koñ boo gis am na ay référence tey bu ñu duggee xool seen référence xam ne ñii kat tey ñu ngi xool di ñëpp dañuy nekk lu baax am de mi ngi noonu mais Sénégal boo xool si ku la ku la ji boo bëggul kenn jiitu la da ngay mujj sonn rek mi ngi noon boo ngay mujj sonn nit foo yàlla moo bindee noonu doomu aadama bu jénnee kii ñaanal ko yàlla kii kan mu génn yàlla na ko yàlla réussir yàlla na ko yàlla may ndam ndax kii bu réussir yow réussir nga bu ko defee loolu comportement mais yow bëggoo kenn koo xam ne réussir bëggoo ku la jiite doo jiite mu ko bay laa yómmu diin nit noonu da yàlla noonu lay séddee doomu aadama tey ñu yaa géete nañu ibra nañ ànd ak ibra ndax kii kat yàlla may no bu yow di nga jiite topp mais Sénégal nanguñu ci loolu du ñu lenn leen neex de bu kii génnee wala ngi koy xalab koy def bëgguñu ko réussir ko am wala am dañ lay su daane ba mel ni yow commencé di seex tax di ree loolu du comportement comportement ni bu yàlla ji da koy ñaanal kii kat du fii def ni yàlla na ko yàlla may wér may ko rébi mu de nekk multimilliardaire ndax dañ mi ngi jariñ dëkk bi yow jariñoo dëkk sa xeet jariñu dëkk sa famille jariñu dëkk kii di jariñ dëkk bi nga ko waxee loolu c'est pas normal waaw loolu c'est normal loolu baaxul dalay delloo ginnaaw lépp teg ko ci comportement rek waaw yar ak teggin jàngale xam nga lépp boo ko defee yàlla day ñëw. day ñëw macha allah am na solo kàddu yu mu ji lay tàggoo. waaw kàddu yi ñuy tàggoo waaw di remercier tey say Mansour Ba ku mel ni moom rek moom la ñuy remercier parcelle ndax moo fi def loo xam ne ñu jar a remercier mhm. parce que benn booy sonatu xale yëpp mi ngi sew jàppale ku mu yob mi ngi lay dimbali stade tey nawetaan Santhiane lu mu ci dugal ci bu matul tey 10 millions dem na ci 9 millions lépp pour ASC Santhiane bi ah jàppale nit ñi am comportement am lépp tey bu bu bu tëggee lam ñëpp tey dina leen jox poste liggéey leen liggéey leen mhm. lu mu am tey mi ngi xool tey fam ni ngi koy jàpp kon kooku dañu ko war a ñaanal mhm. ndax bu réussir yow da ngay réussir boo ko gàllankooree bu gàllankooree yow da ngay gàllankoor kon nañ ko ñaanal daal yal na ko yàlla yëkkati ci tawfiq Seydina Muhammad rasulullah kooku ñëpp a ko rafetlu daal xale boo xamante ne benn chemin la xool daal pour defar dëkkam am de jël don yi surtout fu ne mu jox la école yi bàyyilu marché yi bàyyilu fenn ci boppam lépp lu mu am mi ngi koy jël ba Casamance fépp foo xalaat tey mi ngi jël dooleem di ko ci jàppale di ko jël doon di ko jàppale néew di xool nag nii sama papa doon def père ngelaw di ko def mu ne xaaral ma roy sama papa xaaral ma roy sama yaay comme nu rasulullah waaw loolu rek mooy kàddu boo xam ne damay def na fi loo xam ne moom ñoo jara def ñu wax ko loolu mu dégg ko waaw bu doon keneen duñ ko man loolu lay def lu baax boo koy def yàlla ko jox kon nañ ko ko gàllankoor dëpp yàlla bu mu seen daalu gàllankoor ci daraje yaa rasulullah bu ñu ko defee ñëpp ay am daan gis nañ loolu ñu nag Batika dégg ngeen waxtaan bi li mu wax yëpp macha allah am na solo ci combat Modou Lo Ama Baldé combat ki nga xamante ni mooy Siteu ak Lac de ak li nga xamante ni noonu la réew mi doxee ñuy gërëmaat ñëpp di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci liggéey bi PDG Assane Ndiaye borom bawal ñu ngi koy bégg bu baax di ko siyaar di gërëm sama ba du fay di rafetlu liggéeyam macha allah am na solo di gërëm bu baax a baax mbokk yi Serigne Bachirou Toros Tandiagora maa ngi koy bégg bu baax a baax di ñaankat nekk fële ci Medina. képp ku bëgg say mbir dox wala say affaire baax danga koy seet ci moom boolewul dara ak i wax sunu borom lay ñaan kurusam la yor day ñaanal nit ñi te kum ñaanal macha allah sunu borom nangu ko ndax euh, sell bi nga xamante ni nekk na ci moom en même temps day consulter ay doomu aadama da lay consulter ba xam feebar bi ne ci yow mu doog laa faj su ko mënul faj mu ne la mënuma ko moom ñu koy béggee bu baax a baax di ko siyaar di gërëmaat ñëpp di gërëm sëñ àll borom kaan bi borom ak ñi nga xamante ni ñoo ay soxnaam doomam bébé Fall ñu ngi koy bégg bu baax a baax di ko siyaar di bégg bu baax ki nga xamante ni mbokk yi mooy Ndéla jeng borom amoo 4 wala amoo 5 ñu tuddee ko tànn beer euh, la le 16 la le 26 incha allah foofu ca géejawaay ñu koy bégg bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox dig daje beneen yoon jaa ngeen jëf sax